du jour moom euh, la moom la ñu wax euh, voilà euh, Cheikh sujet bi ñuy waxtaanee ñu ngi koy waxtaanee fan yi yëpp amaana géej xaw nañ fee géej tuuti bokk internet yi namoon nañu mais avant ñu fi ñu fi ñu fi géej sujet bi lañ doon waxtaanee on voit que c'est d'actualité croisade contre le bradage foncier le pari risqué de Diomaye. waaw Cruzita comme ni nga ko waxee rek mu mel ni affaire terre moom du lu bees ci plateau bi waxtaanee nañ ko fii. il y a presque deux semaines de cela tey bu ñu si ñëwaatee donc benn continuité lay doon wala benn suivi euh, on se rappelle que moment bi ñu ko doon mujjee waxtaanee boobu dafa tombé woon nag ñu arrêté lépp li nga xam ne c'était des travaux au de la corniche bu ñu waxee corniche dañuy wax fi nga xam ne moo commencé Cap Manuel corniche est euh, palais de la République ba fi nga xam ne moom mooy euh, fële. Euh, filao géejawaay yooyu yëpp si la bokk ba Malika sax si la bokk loolu mooy corniche bi donc à un moment donné le président en quelque sorte c'était pas le président nit ñi dañuy wax naan président moo demandé woon à ce que ñu arrêté travaux yi mais au moment xam ne wala benn communiqué boo xam ne c'est signé Bassirou président de la République du Sénégal demandé arrêt des travaux loolu ministre des finance moom moo génne woon arrêt boobu et ministre des finances tamit ban prérogative la am pour arrêter demande à ce ñu arrêté ay yoo xam ne entamé woon nañ ko là c'est une question boo xam ne peut-être dinañu ci apporter ay éclaircissement beneen bi mooy on a resté après une semaine après ñu gis ñu demandé le président demandé na à ce que ñu reprendre travaux yooyu nga xam nañ ko kon tey travaux nañ ko donc mu mel dafay soulever soulever ay interrogations yu bëree bëree bëri qu'est-ce qui derrière tout ça on demande l'arrêt des travaux même pas une semaine ñu ne nañ reprendre travaux yooyu lan moo nekk ci c'est bien titre parce que waxuma la sax un pari risqué mais c'est un couteau à double tranchant bu ma nee c'est un couteau à double tranchant mooy on s'est rappelé woon naa ko gis nga le président Macky Sall en personne en 2016 woon na moom tamit en ce que ñu arrêté tous les travaux yoo xam ne dafa nekk au niveau de la CONIS mm. parce que à l'époque y avait comment dire le mur de la honte la ko tuddee woon benn mur mm-hmm. boo xam ne benn parcelle boo xam ne dañ ko bëggoon a les Turcs mm-hmm. communauté libre bu jóg taxaw ne du ci am bañ mm-hmm. demandé indi woon coow lu mag si bañ arrêté woon travaux ne mënu leen a xam man mënu a xam mais y a des yoo xam ne ils sont ñoo nekk derrière mhm. tout ça mhm. te ñooñu boo arrêté seen i travaux yoo xam ne peut-être commencé nañ ko parce que mhm. c'est pas un bon jour que xëy rek ñëw xëy dem au niveau de la CONIS commencé di tabax ay hôtel non non y procédure bu mën a procédure mooy am nañ ay terrain peut-être bàyyi la nekk titre foncier la nekk xaw ma lu mu di nekk mais am ñu bind ko papier noir ci blanc mu wóor ne lii c'est légal kii construire xëyul xëy te avant ngay construire da ngay am autorisation de construction autorisation de construction kan moo ko joxe DESCOS moo ko joxe DESCOS branche gouvernementale donc mu mel ni tout ça résumé bi bu waxee yëm yëpp ci gouvernement la yi ñëwaat mhm. le premier prédateur foncier wala le premier responsable prédateur foncier c'est l'État du Sénégal de 1960 nag à nos bu ma nee de 1960 à mooy avant la colonisation yabe yabe boo xoolee Dakar ñu naan la lu tax ñu naan Dakar suufu lébu la Thiès ñu naan la suufu kajoor kajoor yi la yooyu parce que c'était comme ça à l'époque avant la colonisation Dakar ñi fi dëkkoon ñëpp ay lébu lañ en quelque sorte ñoom ñoo ñëwoon accaparé terre yi ñoo ko moo fi nekkoon seen i grand parent moo fi nekkoon ñu ne seen suuf la suufu lébu la mhm. léegi nag avec la colonisation à partir de 1960 le français bi mu ñëwee suuf soo nga xam ko moomoon wala sénégalais yi fi fekkoon nañ ko moomoon ñoom dañ ko exproprié nangu ko si sénégalais yooyu mhm. jël ko nag dóor ko lu ñu tudde si domaine national c'est à de ce cadre nag domaine national boobu bi nga xamee ne français yi dem nañu après la colonisation lañ fi bàyyi le président Léopold Sédar Senghor ak Mamadou Dia Mamadou Dia ak Senghor ñoom dañu continuer ci même procédure boobu li français yi bàyyi woon moo tax ngay dégg naan la suuf domaine national état moo ko moom état moo ko moom état ci ci ban domaine la ko moomee donc même état bu ko moomee parce que la loi 46 64 de 1964 ba léegi moom mooy wax ci wàllu domaine national loi boobu je pense que il est caduc parce que depuis plus de 64 ans loi boobu war na laaj révision boo xam ne dañ koy réviser tout ce qui terre tout ce qui suuf ñu leeral ko Sénégal une bonne fois pour ñu xool état maanaam li moom ci suuf si fan la yam fan la commencé fan la yam li xam ne moom la la Sénégalais lambda moom fan la commencé ma lem mais état à quelle fin ak état lan la koy dee ak fon la ko jëmee la preuve euh, boo xoolee tey journal Dakar Times si titre bi moo ngi titre mu ne de 2000 à 2012 non de 2000 à 2012 non de 2000 à 2023 à Almadi 2 Kër Massar après Kër Massar Almadi 2 Sédiment mu ne plus de 300 terrains ont été octroyés aux inspecteurs des impôts et domaines. Mm-hmm. gis nga inspecteur impôts et domaines que ça soit Guédiawaye les filao que ça soit Almadi que ça soit mu nekk corniche. que ça soit mu nekk cité kër góor gi kër góor gi Sacré Cœur bépp terrain boo xam ne jël nañ ko fi wala mu nekk terrain wala bépp cité boo xam ne dagg nañ ko fi ñoom octroyé nañ leen ay parcelles yu bëree bëree bëri loolu lan moo koy justifié parcelles yooyu ñu leen di octroyé parce que bu fekkee ki nga xam ne inspecteur des impôts domaine la moom mën nañ ko octroyé terrain fu ko neex ci Sénégal fu ko neex ci Dakar sénégalais ki nga xam ne le sénégalais daal moom moom rek mooy perdre encore une fois de plus donc suuf si warul am kumba am ndey warul am kumba amul ndey mm-hmm. amul inspecteur des impôts et domaines amul enseignant amul policier amul gendarme amul douanier sénégalais yëpp ñoom ñoo si am képp koo xam ne war nga si am une parcelle de terrain mm-hmm. mu war ne parcelle de terrain bi war nga ko am si les normes et les règles mu jaar yoon nañ la ko jox boo ko ci warul am ñu nangu ko ci fa nga ko jële woon delluwaat ko ci xam ne moo ko moom mais je que warul am inspecteur des impôts et domaines wala man ab douanier la wala man gendarme la jege naa état man na ma daggal ay terre c'est pas ça warul demee noonu donc révision suuf si bu ñu bëggee problème bi ñu ñu régler ko une bonne manière une bonne fois pour je pense que li nga xam ne moom mooy domaine national code bi il faut ñu réviser ko parce que ça fait plus de 64 ans code boobu nekk fi te code bi c'est devenu caduc amatul benn njariñ problème suuf bari na du loo xam ne da ngay xëy xëy arrêté travaux rek moo koy réglé il faudra aller en bu ma nee aller en profondeur lépp loo xam ne dañ ko def lu jaaduwul mu ci wàllu suuf mu wàllu domaine national boobu ñuy wax sax parce que boo xañee doomu aadama nag xañ ko lu nekk suuf si la tabax kër si la defar leneen ak leen donc c' est le bien plus précieux et mm. bien gis nañ euh, bi nga xam ne volet bi nga xam ne Dakar euh, mm. ko mm. tabax ay immeuble di leen def location yi di def lu ko neex alors que l' en place il pouvait résoudre ça bu ma ne il pouvait résoudre ça pourquoi pas l' état mu jël suuf yooyu nga xam ne peut ay nit jël nañ ko te moom wuñ ko wala jël nañ ko ci lu nekkul yoon moom mu jël ko construire ko def ko ay cité wala mu xool nu ko def ba ay habitat bu fekkee da koy jox la Sénégal am accessible à tout le monde accessible à tout le monde Sénégal bu fekkee sax dafay rembourser par crédit mu xool nan la mën a rembourser par crédit pour un durée de de x année mu fay ko mu am këru boppam loolu état mën na ko y a des états qui le font. Mhm. c' est pas loin donc mënoo jël lépp nga ne da nga koy jox les privés après privé ñoom lu leen neex lay def donc ce pays il faudra qu'on arrête de privatiser tout li ñu fi privatiser moo bëri mënoo jël loo xam ne ñëpp ñoo ko bokk muy loo xam ne c' est quelque chose de national domaine national le public nga bëgg koo jox une part de la population tant qu'on n'arrête pas ça le problème foncier ne va pas se régler et puis euh, ne euh, euh, c'est c'est un problème xawma problème ni ñu ko tuddee sax ci titre mais bon parce que xam tax mu nekk un double problème en fait le président de la République Bassirou Diomaye Faye boo xoolee dans sa déclaration de patrimoine moom dafa souligné woon ne dafa am ñaari terrain benn terrain moo ngi ko am euh, Ndiaga Ñaaw mu nekk 3 hectares beneen terrain moo ngi ko am Sandiara mu nekk 4 hectares mm-hmm. le président de la République en âme et conscience moom am na ay terrain on sait pas si condition la ko amee c'est un comme ñun ñëpp ñu nekk ay sénégalais am na droit am terrain mais bu fekkee li ñaan naan euh, da bëgg a seetal moom na commencé par lui même na wane 4 hectares yooyu moom Sandiara ak 3 hectares yi mu am njagañaaw si yenn condition la ko amee ba pare mm-hmm. bu wane sénégalais yenn condition la amee ñaari hectares terrain yooyu ba pare

wax seen problème foncier yooyu wala ci suuf yi ñu leen di tudd nan la demee exactement pare bu leeralee yaakaar naa ñi des ñëpp dinañ leeral képp koo xam ne am nga si suuf boo xam ne ni nga amee jaaduwul ñu restituer ko borom képp koo xam ne suuf si ni nga amee jaadu na en bonne et due ñu bàyyee la ak sa suuf parce que sa la yaa ko moom. voilà euh, Kouzita on parle du bradage foncier mu doon nag sujet d'actualité ñu koy waxtaanee nag jamono yi yëpp ñu ngi wax ci littoral bi wax ci corniche bi mais ba tey ñu ngi dem ci biir euh, réew mi ñu sànq Cheikh yaa ngi tudd Mbour 4 euh, kii di président de la République defoon na fa descente yeneen i gox sax ñu ngi gis ñeneen ñu mhm. dëkk ci côté yooyu di di di dénoncer yenn bradage yi nga xam ni am na fa mu mel ni question la boo xam dafa soxal sénégalais parce que wàllum suuf la te suuf moom mooy richesse suuf li mhm. xam ne moom population population seen suuf la ñu am te suuf bi amul euh, en fait li Cheikh di wax sànq c'est très important parce que waruñu ko approprier ñu ne euh, suuf bi domaine national la état moo ko moom état euh, en fait lu mu bëgg la ci def ñoom mhm. suuf bi sénégalais yi ñoom ñoo ko moom te comme ni nga wax dafa dafa dafa ne woon nañu arrêté travaux yi mais il est il est obligé ne waat ñu reprendre travaux yi parce que contrôlé wu loolu parce que peut-être yooyu bañ koy amal sax moom peut-être nekkagul président mënu forcé pour ñu euh, arrêté li nga xam ne moom mooy travaux mu doon loo xam ne c'est au détriment des Sénégalais en parce que tey jii nii lu ci bëri booy xool ci yenn ci yenn partie yu littoral yi ñu fay tabax ak yooyu euh, sénégalais yi sax en fait moomuñu ko yeneen ñeneen ñoo koy moom ay étranger ñoom ñoo koy moom ñoom ñooy ñëw fii euh, am ay accord peut-être euh, comme li Cheikh wax nekk ci case ay lobby peut yoo xam ni ñun duñ ko sax maîtriser parfois ñu leen di octroyer ay terres yoo xam ne terres yi sénégalais ñoom ñoo ko moom gis nga xeex bu metti Cheikh mi ngi ko doon wax bu amoon ci. Euh, communauté lébu yi parce que dañu bëggoon jël li nga xam ne mooy seen terre te xam nga lébu dañoo fonk seen ay terre te ils ont raison parce que ñoom ñoom moom seen ay suuf mënuñu ñëw jël ko ci ñoom Euh, ci ci ci jaay doole loolu loolu tamit euh, mënuñu ko nangu moo tax xeex nañ def nañ tout ba ñu bàyyee leen nag euh, seen suuf mais du ñëpp a mën a xeex xeex boobu am na ñoo xam peut-être boo ñëwee jël suuf si ñu bari sax peut-être si population bi ñu sax yëg ni tel ou tel endroit joxe nañ fa tel ou tel chose dañuy jékki saa rek gis ñuy tabax benn affaire loolu lañ ciy am mu doon loo xam ni c'est c'est des yoo xam ni Euh, c'est c'est des choses importantes pour de la vie c'est important lépp sa li ñuy wax lépp c'est important mais lii aussi c'est tout aussi important parce que euh, suufu Sénégal en fait sénégalais bu ci nekk tey jii nii. Euh, facilité bi ma mën a am tey ji ma soxla benn terrain am ko mhm. peut-être euh, keneen ku jóge fële euh, wala wala peut-être man ma am doole am xaalis facilité bi may am keneen ku jóge fële même facilité bi la war a mën a am tey bu soxlaa benn terrain wala bu soxlaa benn suuf mu yomb ci moom parce que ci biir dëkkam la nekk nekk nekkul dëkku jàmbur donc mënoo nekk sa biir dëkk ba pare euh, parfois yenn parti yi sax ci sa dëkk mënoo fa am terrain wala wala yenn benn partie population mënuñu fa dëkk parce que fii nii dañ ko octroyé ay nit wala dañ ko jox ay personnes yoo xam ñoom ñoom ñoo ko yellool te ñëpp ñoo ko yellool du loo xam ni moomeelu benn nit wala benn groupe sénégalais yëpp euh, ñoom ñoo ko bokk donc euh, c'est boo xam ne c'est un très très euh, important comme li Cheikh wax c'est pas la première fois parce que wax littoral bi yàgg na yàgg mhm. na biñ ciy wax ñëpp di ci ci coow yaa ngi doon dégg sax ñu bari ñi ngi dégg ñi Boubacar Camara sànq maa ngi dégg mu naan nañu peut-être jéem a sax sécuriser ñi nga xam ne ñoom mooy lanceur d'alerte yi mooy ñi nga xam ne dañuy gis peut-être fenn fenn foo xam ni Euh, am na am na loo xam ne demeewul noonu wala dalul seen xel ñu lancé alerte mais mais ñu ci bëri ci ñooñ peut-être dañ leen di créer ay problème parce que mhm. ay borom doole ñoom ñooy nekk ci ginnaaw ay borom doole la ñuy euh, yooyu les euh, suuf boo déggee sax parfois je veux pas même de nom mais boo déggee parfois sax ay yenn noo yi ñu koy citer naan moom moom fii diw moom moom fii moom moom fii mu mel ni ñooñu peut-être ñoom ñoo ëppale sénégalais lambda bi ci suuf bi nga xam ne moom moo nekk Sénégal bëgg a jël suufu Sénégal fi gën a xam ne moom moo gën baax daal koy akimoo octroyé ko seen bopp loolu peut-être inspecteur des sànq yaa ngi wax inspecteur des impôts mais c'est pas seulement les inspecteurs des impôts bëri ñoo xam ne peut-être dañ doon occuper peut-être benn poste fii ci Sénégal bëri na yoo xam ne ñi ngi koy moom te euh, jamono ji dañ leen war a topp restituer terre yooyu ñi nga xam duñ ko restituer en fait état du Sénégal dañ ko mhm. restituer sénégalais yi en fait parce que sénégalais yi ñoom ñoo ko moom nekkul wax brièvement Rosita. c' est très important yenn a am kumba am mm-hmm. ndey kumba am ndey c' est important mm-hmm. si sa rapport ak fii départ gaynde arrivé muus la parce que boo xoolee <laughs> boo xoolee tic tac mbirum foncier foncier la ñuy wax mm-hmm. littoral bi. mbuurkat ak yooyu mm-hmm. nga jékki-jékki rek après nga gis affaire yi yëpp naxasaay lool li ma waxoon sànq rek mooy 72 heures moo am fii ci Sénégal buñ ko waxtaanee ñetti fan rek après ñu teg ko nele euh, Kourzita fii la ñu imposé woon ay Covid 19 couvre feu léegi léegi ñoom ñu ngi ci couvre froid bi waaw ñoom ñu ngi ci couvre froid bi ba di seddoo terrain yi di seddoo milliards yi xam nga loolu yëpp ci ginnaaw nga nga koy def ci ginnaaw askan bi nga mhm. loolu yenuwul maanaa sax nga def ko ci ginnaaw askan bi nga xamante ne moo la fal moo la teg fii loolu comme genre coup baa lay doon xoolal hectares yi yi ngay dégg euh, Cheikh Diagne te am na ay askan yu Sénégal yoo xamante ne ñoo ngi fi amuñ sax fi ñu dëkk da ngay waa da ngay xalaat nawet ñëw nga bàyyi sa kër ay dëkkuwaay yu bon yoo xamante ni foofu lañ nekkoon ndox bi mm-hmm. dugg nga dem ci école yi di fa di fa kii di dëkk te am na ñoo xamante ni ñu ngi rangalee ay immeuble yoo xamante du jeex mm-hmm. au lieu ñu ñu jàppale askan wi ci terrain yooyu comme ça ñu am sax fu ñu fu ñu dëkk mm-hmm. même bu dee sax da leen di kii ñu am ni ñuy faye par ndànk-ndànk ba kii waaye déedéet da ngeen di séddoo euh, terrain yi mel nii yenn yéen moom dëkk bi te ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko yelloo amuñu ko amuñu ko loolu moo tax gis nga fii Sénégal moo war a yeewu à chaque fois ñoom dañuy ñëw promettre lii promettre leen mais dara duñ ci def dara dara léegi yow sénégalais lam daam yow yaa ci gën a sonn gis nga ci location yi rek da ngay gis koo xamante ne day naan du ma loué sénégalais. Mm-hmm. étranger laay loué parce que ñoom ñoo fay. mais sénégalais yi ñoo gën a yelloo immeuble yooyu mën nga leen loué te wàññi leen prix bi parce que yow amaana sax fi fi nga tabax ñoom am nañ ci wàll. moo tax euh, Koursita à chaque fois nit ñi di xëccoo suuf te loolu warul woon mën a am gis nga fii sénégalais yi ku nekk dafa defee war a gis boppam parce que dëkk bi ñun ñëpp ñoo ko moom amaana sax politiciens yi ñun ñi ñun ñi sénégalais lambda yi nga xam ne citoyen simple ñoo leen ëppalee ci teer yi te loolu tamit po euh, askan wi bu ñu bëggoon loolu deñ te day day deñ loo ci ñoom rek la dépendre bu ñu bëggoon lii deñ day deñ léegi nag li tax continuer wuñu ñoom ñoo ko xam parce que fii inspecteur ak inspecteur des impôts et domaines ñoom fi suuf yi dugg xam nañ ko dossier waaw dossier waaw xam nañ ko fépp fi suuf du gis ñu del suuf si jokk ay nit ñoo xamante ne yellawuñ ko ay borom tur ay influenceur ak yooyu yoo xamante ne ñu ngi nii am ci Dakar am ci terrain yi bu mu fees del te doomu baadoole ñuy fii amuñu sax loolu dafa metti sax parfois da ngay romb ñoo xamante ne billaay du ñu am sax ñu nekk ay Sénégal du am sax fuñ dund ngay jël terrain yi di ko jaay di ko jaay étranger te ñoom seen dëkk defar nañ ko ba mu baax ñu ñëw fii sa dëkk bëgg amaat fa leneen loolu nag daf dafay war a jóge billaahi ñu bàyyi promesse yi bu ñu prometté askan wi nañ ko jëfee moo gën. c'est important mais mu ne surtout li nga wax ci étranger yi parce que sànq sax. Euh, dañ fay créer ay business yoo xamante ne mm. tamit di di dund si si kaw si kaw parce que des fois euh, endroit boobu di nga fa bëgg dem féexlu wala nga bëgg fa defi dara te dañ koy privatiser te obligé nga dem foofu fay mm-hmm. euh, la Cheikh Maimouna Sànq nee na <laughs> départ gaynde arrivé mousse moom la ko moom la ko jàppee au fait mais Cheikh euh, gisoo peut-être que di dina am suivi parce que Maimouna à l'entendre parler peut-être elle pense que euh, comme ni mu wax 72 heures moom moo fi am dañ ciy wax tey suba ñu bañ ci wax mais bradage foncier Cheikh euh, il faut moom suivi quand même. Euh, du départ gaynde arrivé mu sax mm-hmm. parce que le problème est complexe et c'est plus compliqué que ça bu nee le problème est complexe mooy boo xoolee ñi xam ne peut-être dañu commencé woon di construire yëpp au niveau de la corniche tey boo xëyee un bon jour nga ne dañuy arrêté travaux yi wala travaux yi da nga koy interrompre wala da nga ci obligé de dénommer des centaines de milliards mm-hmm. waxuma sax millions des mm-hmm. milliards laa la parce que c'est des milliards qu'ils ont investis. da nga fay ay milliards. fu mu mm-hmm. fay fay ba sonn de un de deux am ay contentieux judiciaires yu. te peut-être Cheikh am nañu acquérir euh, suuf mm-hmm. donc moo tax may le premier bradage foncier du Sénégal c'est l'état du Sénégal. Mm-hmm. état mu leen octroyé quel que soit alpha c'est l'état qui est fautif. état moom mooy responsable. keneen ku ñu ci wax dara tooñ ko mhm. ñooñu peut-être c'est des personnalités c'est des borom doole wala nu ñu ko mën a tudde mais ñoom jaar nañ ci procédure bi war a jaar état jox leen ko mu nekk bàyyi ñu def ko titre foncier ba def seen tur mu nekk lu légal donc quel que soit alpha bu ñu amee ko ñuy incriminer nañ incriminer l'état du Sénégal parce qu'il est responsable de tout cela bamboula foncier bi ñu fi gis yëpp c'est mhm. l'état du Sénégal mhm. il est bien conscient tu vas obligé de prendre des cinquantaines d'avocats yoo xam ne dañuy représenter l'état du Sénégal mm-hmm. tu vas payer des milliards yoo xam ne chaque jour ngay xëy dem di tribunal di fay ay l'état n'a pas ces moyens là donc ils sont obligés de la lu ñu qui est mais nañ fexe ba durant les les cinquante prochaines années wala le siècle qui vient képp koo xam ne dañu fi war a octroyer suuf nañ ko war a ci norme bi mu war a mu nekk le sénégalais lambda commerçant bi xëy marché Colobane ak kii xëy inspecteur des ak kii xëy impôt et domaine ñoom ñaar ñoo war a ci wàllu ko ko naru boo waree octroyer l'autre beneen terrain octroyer ko dans naru mais waratul am kumba am samba waratul ko jox ay terrain wala kii dafa bokk ci benn service rek ñoom bu ñu leen mooy wala les enseignants nañ lotissé les marchands ambulants nañ lotissé ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk euh, ñeneen ak ñeneen ak ñeneen parce que ñoom ñëpp société bi lañ bokk ñoom ñëpp c'est des sénégalais ñoo bokk même carte d'identité nationale mhm. donc CNI lañ yor mhm. ils sont tous pareils devant la Lega ils sont tous pareils donc beneen affaire bi mooy gis nga souvent ñun on n'a pas la bonne bu ma ne on n'a pas la bonne may mën a sànq ma suñ bailleurs yi fii dangay gis ñoom lu luye benn jox location benn étranger moom moo leen gën a jox ko benn Sénégal parce que le Sénégalais n'a pas la bonne information man tey ma yor sama xaalis ñëw di luye si si yow nga bañ ne doomal du si bañ dara man ak yow nañ dem tribunal mais dara du ko si bañ gis nga yaa des choses yoo xam ne ñun ñoo ko mën a régler suñu bopp parce que ku koy def xam na en âme et conscience ne ki mu koy def nii amul benn information da ci bañ koy jar nga egg fekk moom fenn bi déjà ce qui inégal wala ce contradictoire mooy mm. Sénégal ngay dem di def location ñu naan da ngay fay mois. caution 3 mois caution boo xam ne daf mu mel ni dafa nekk lu légal alors que loolu yëpp c'est illégal am na ñoo xam ne ñoom ñoo ko war a suivre nañ ko suivre nañ ko topp nañ ko war a toppee beneen bu may terminer mooy gis nga tant que supprimer li xam ne moom mooy euh, domaine inspecteur de domaine xaw ma inspecteur de domaine sax xaw ma mm-hmm. euh, nan laa ko euh, mm-hmm. mm-hmm. problème foncier doo def yokk parce que ñoom ñooy octroyer terrain yi fi nekk yëpp ñoom ñoo ko octroyer ñu ko fi am donc direction des domaines boobu même buñ ko supprimer ñu jox ko peut benn juge boo xam ne wala ñoo xam ne dañuy nekk indépendant ñoom nekkaluñ fi Massamba nekkaluñ fi Mademba wala ñu yóbbu ko au moins au niveau du président de la République peut-être moom mu koy compté directement mu rattaché directement à la présidence mm-hmm. mais ñu bañ ko retracer benn corps boo xam ne lu leen neex dañuy def Massamba am Mademba am keneen dam c'est mm-hmm. anormal mm-hmm. c'est important Cheikh Diagne merci beaucoup mbokk yi ngi ba tey ci